ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag pour coordination départementale bu Mbacké ñu ngi toog ak le coordonnateur président Serigne Cheikh Thioro Mbacké di coordonnateur section communale bu Touba maa ngi feggoo tam ak euh, le coordonnateur de Mbacké muy Ahmadou Lo ak mbooleem kàngam yi nga xamante ne ñu ngi si Pastef Mbacké waaye en général ci coalition Yewwi Askan Wi yéen euh, suñu naataango yi nga xam ne yéen euh, nos amis de la presse aussi ñu ngi leen di nuyu di yëkkati suñu kàddu di sant yàlla di julli ci yonent bi waaye di sant Cheikh Mahmoud Mountakha te di ko ñaanal mu yàgg fi tëwér tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci ay poñ yoo xam ne bi ci njëkk mooy su ngeen fàttalikoo le 10 février bi dugaloon nañ war a am meeting boo xam ne fii si Mbàkke euh, ak le leader di parti PASTEF membre de la coalition Yewwi Askan Wi bi le président Ousmane Sonko gis ngeen na mu demee yéen ñëpp waaye liñ ci gën a ñaawlu mooy du ma leen tuddee détenu mais otage yi nga xam ne jàpp nañ leen ci ñu ay otage politique mooy xale yoo xamante ne nii tey jii ñu ngi si kaso bi tëdd fa waxuñ si ñoom dara jéego bu nekk nag dox nañ ko si ba mu xewe ba léegi. Pastef départemental mboolem commune yi nga xam ne euh, département bi ngànk na ko taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne rawatina nag euh, Pastef tubaa ak Pastef Mbacké yi nga xam ne ñoom la gën a laal ndax ñi ci ëpp ñii Mbacké la ñu dëkk ñi Touba waaye taxaw ci taxawaay boo xam ne bi ñu nekkee Mbàkke diir bi ñu fa nekkee ba keroog bi ñu leen di defeere Jurbel ñu ànd ak ñoom toppatoo leen ba fi mu nekk nii waxuñ ci ñoom dara léttu léttuñu firiwuñu loolu ñu ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem te di gën a waxaat ne Macky Sall otage politique yi ñu ngi koy gën a waxaat otage politique yi nga xam ne ñoom nga jël di ko xeexee tey lañ koy gën a ñaawlu ndax ota boo boo seetee tey ji Sénégal li may faral di wax nga dem dakaar ñëpp ngi ci kaso yi ñooy otage politique ñoom ñëpp ñu nekk ci détention provisoire kenn waxul seen dossier dara ñu fay nelaw loolu ñu ngi koy ñaawlu ko mënuñu ko faj suñu doole ñu ngi koy ñaawlu fa ñaawlu gën a mais ñi nga xam ne dañ leen a téye Jurbel muy détenu xale yi nga xam ne jàppoon nañ leen le 10 février ñu ngi exiger ngeen libeere leen ci nu mu gën a gaawee ndax ay xale yu jànga nga ca ay jàngalekat a nga ca ñoo xam ne dañu liggéeyi woon di ñibbi ñu jàpp leen muy loo xam ne ñaawlu nañ ko lool lool ba fa ñaawlu yem tey tey ñu tëj leen ci kaso bi ñuy croupir defe naa ne loolu dafa régresser démocratie waaye avancé lu ko kon dinañ ko ñaawlu te tam ñu ngi bokk ak seen njaboot naqar wi ndax taxawaay buñ ci war a taxaw rek incha allah dinañ ko bokk ak ñoom nañ ko tàmbali woon ba léegi di ko topp ak ñoom di ko ñaawlu nag ndax nit ki boo meelu ko naqari mënul lu dul dox si ay jéego su ko mënul tam dina si ñaawlu bokk na ci loolu. ci poñ yooyu tamit ñoo ngi gën a taxawaat di lancer waat un bët bu set rek ki li may wax noot gi nga xam ne Macky Sall mu ngi koy noot opposition bu Sénégal newoon da leen di réduire ci seen simple euh, expression tey jii munu ci loolu tax muy ku mën a noot tëj ci kaso bi mu ngi lay tëj ci kaso bi di jël loo xamante ne nii àq ak yelleefu askan wi la tey nga xam ne suñu droit droit bokkul constitution may nañu droit boo xamante ne mun nañu def manifestation wala meeting wala yu mel noonu te tey jii daf ñu koy xañ ndax loolu moo juróon lii xew le 10 février ba gis nga ni nooteelee ay nit jàpp ci lu bari lu ëpp 70 personnes tëj leen ci kaso bi te waxuñ ci ñoom dara loolu di lu ñaaw encore may waxaat tamit ci turu Pastef départemental rawatina ci jigéen ñi xam ngeen ne suba le 14 mars Euh, le président Ousmane Sonko bokk ci la coalition Yewwi Askan Wi ñu wootee Ziga meeting laa koy tuddee fee ci Dakar ci ACAPES ñu ngi si woo patriotes yi yëpp ñu ngi si woo membre yi coalition Yewwi Askan Wi yëpp muy sympathisants yi muy militants yi jiital leen ñëpp nañ fa teew teewaay bu rafet wan Macky Sall ne ko c'est le peuple c'est le peuple même bi nga xam ne moom moo choisir te bu choisiree dañu respecter loolu ndax le peuple est souverain le 15 nag ñu ngi leen di fàttali ne. département yi ci Sénégal yëpp patriotes yi en général la coalition Yewwi Askan Wi war nañ fa def ay marche ci marche yooyu Mbacké desu si ginnaaw woote nañ fi marche à Mbacké le quinze marche boobu ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp muy marche boo xamante ne nii maa ngi ci woo sama mbokku jigéen ñu taxaw ci taxawaay bu rafet naqarlu yorinu bon wi nga xam ne Macky Sall yor na ko réew mi bu ma nee yorinu bon ci politique bu ñaaw waaye li ñu gën a naqari mooy nooteel gi muy doomu aadama yi dinañ lañ seen àq ak seen yelleef loolu yëpp dinañ ko def si marche bi ñaalu ko ba fa ñaalu yem seedeel ko ñëpp ñu yëgandoo ko lool donc loolu lañ amoon si luñ ci wax euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. man la Ahmadou Lo coordonnateur Pastef départemental de Mbacké ñi ngi ziare mbooleem ñi nga xam ne wuy si nañ si woote bii ñu war a def muy confrance de presse ñu di leen sant yéen euh, l'équipe presse bi seen taxawaay rafet na macha allah di jaajëfal honorable si wax ju rafet di ziar sëñ Cheikh Thioro honorable député tey nag li ñu fiy dajale woon bokk na ci 2014 ba léegi Macky Sall singali gi mu singali euh, parti bi di Pastef rawatina leader bi di Ousmane Sonko ñu seetlu fii ci euh, le 10 bi jàll dañoo bëggoon a def meeting national meeting bi ñu waaj ko ba dara desul luñ ne suba la ci taxawaayu Euh, préfet ak wane ne ñoom ci pouvoir lañ nekk lu leen neex lañu def ñu dem ba dernière minute ñooy seen meeting bi duñ ko autorisé te teguñu ko fenn lu dul mooy da ngeen manqué benn signature. lu kenn mës a gis ci àdduna mooy signature ay nit def meeting même bu fekkoon sax am nañ autorisé am nañ war warteef ñoom ñu war a autorisé bañ a autorisé te amuñu droit bañ a autorisé teguñu ko fenn lu dul tax ay nit gaañu si tax ay marchandises yàqu fi. ñu jàpp ci ay ndaw ñu bëree bëri teguñu ko fenn ñu gis ne Macky Sall dëpp boobu léegi nag seen jaay dooleeg nappaate la nekkee waaye loolu lañ koy xamal ne ko loolu dootul continuer ñi ngi masawu nag ñi nga xamante ni seen njaboot ñi ngi leen caabi féet na leen ginnaaw mu am ay jàngalekat yu fa nekk mu am ay élèves yu fa nekk mu am ay ouvrier yu fa nekk mu am ay chef religieux yu fa nekk buñ tuddee ku mel ne sëñ Assane Mbacké ak ay ñoñam mu nekk loo xamante ni depuis boobu ba léegi Pastef les patriotes au niveau départemental lépp lu mu si waroon a jël ay taxawaay taxaw na ko si jëlal na leen ñaari avocat kenn ki mi ngi Jurbel kenn ki mi ngi jógee Dakar di maître saw pour ñu fexe ba duñ fa yàgg mais comme état bu Macky Sall saa boo bokkee Pastef bu la jàppee li muy njëkk a def mooy garde à la bu la garde à vue pare bu la mandat de dépôt loolu nag lañ bëgga mu dañ bis nekk tey ndax ñi mu leen di jàpp jàppewu leen si dara lu dul Pastef lañ bokk. lu dul dañoo uuteek moom gis-gis ndax ñëpp xam nañ ne Macky jamono jii fi mu toll ñuy waaj élection fi ñu waroon di wax ñëpp mooy que ne programme mu ñuy wax lan la def bilan yàlla dogal na ne moom pare na si réew mi ba tax na moom sax xam na ko moo tax ñëwut a déclaré ne moom candidat doon élection yi di ñëw gaay mi nag ñi ngi wër di nekk si télé di wax di lambar ne waaye loolu ñuy wax seen njiit di Macky Sall ñëwu ko wax ñëwu ko wax loolu la ñuy gën a continuer soutenir ko di ko wax ne Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne 2024 mooy kiy bokk te mooy ki ñuy dénk réew mi. ndax Sénégalais yëpp dañoo constaté gis ne Ousmane Sonko mooy c'est le meilleur Ousmane Sonko mooy candidat bi baax léegi nag Macky Sall daan nañu yéen seen choix baaxut dinaa fexe bi seen choix boobu ma naxasaayal ko loolu la askanu Mbàkke askanu département Mbàkke ne ko loolu du fi amee. moo tax ñu leen di waaj woo si rassemblement yi ñu waaj def muy la 14 coalition Yewwi Askan Wi di ko def au niveau national koo xam ne sympathisant mbooleem koo xam ne bëgg nga réew mi ñu ngi lay ñaan nga ñëw suba si mitin boobu ñu def pour ñu wax ne Macky Sall réew mi moomu ko si ndey moomu ko si bàyyi te donn ko réew mi ay carte moo ko joxoon jox nañ ko ñaari mandat jeexal na nañu may li ko desee kës néew muy 11 mois na rafetal tam may ñu jàmm gis nañ nag boobu léegi mi ñuy singale ku bokk Pastef bu ñu paree ni sax da ngay gis am na ñu ngi yundulu di xool lan lañ wax bañ mën ñoo jàpp waaye ñun ragaluñu kaso bu fekkee kaso dong la jàppe ne moo tax ñu danañ deltu ginnaaw day nax boppam gis na Ousmane Sonko topp ñu ko en tant que mu sant Sonko dafa am benn projet bu mu ñuy présenté ñu yàgg koo rêvé mu ne kat bu ngeen ma falee 2024 dinaa ko réaliser seen rêve yooyu incha allah dina sotti kon Macky Sall day sonn mais par A ou B ñun suñu projet day sotti ba boo mu xam ko te bu fekkee ne tëj dóore nappaate loolu la fi yaakaar ne moo ñuy tax ñu arrière day nax boppam bu ma tëjee dana gis keneen ko toog sama place bu tëjee kaw keneen dana toog tant que projet bi surtout duñ dellu ginnaaw te président Ousmane Sonko. lii ñu koy woo lii ñu koy woo muy le 16 dossier tappale dossier boo xamante ni waroon nañu sax rusa taxaw naan dañ si woo ku mel ne mbaa may ñaan ñëpp xam nañ ne du nitu normal bu fekkoon réew mu normal la ñu mbaa may ñaan taxaw heure bi du ko fekk mu fi nekk si biti. tey jii muy naan day jéem a euh, porte plainte kan Ousmane Sonko ngir lan pour mu bañ a bokk 2024 dañuy nax seen bopp Ousmane Sonko day bokk par A ou yàlla léegi moo ko téye a bokk mais ku yàlla mënoo fexe ba Sonko du bokk. parce que sénégal Sénégalais def lañu seen choix ba pare te Ousmane Sonko lañ tànn ne moom lañ jàpp ne bis bu ñu ko falee danañ génnee si jafe-jafe yi ñu nekkee kon Macky Sall na rafetal lii mu ko dese bëreetut moo gën muy ñaaw ndax lépp lu mu rendi si loxoom lay naaj. mënut a fexe ba bras de fer ak askan wi te askan wi ñoo taxaw pour defendre le projet pas Ousmane Sonko pour mu xam lool. kon ñu ngi leen di woo ci marche bi nga xam ne dugal nañ ko préfet comme day déglu ñi si kaw mën naa am ñu ne ko bul ko autorisé waaye bu danañ marche. bu ko autorisé wut danañ marche parce que suñu devoir la suñu devoir la dañ koy yëgal rek bu ñu mënee encadré na ko bu ñu mënta ñu ñun encadré suñu bopp liñ bëgg a dénoncé Macky Sall gu ñaaw gu mu yore politiciens yi mu jàpp te tegu leen fenn mu bàyyi leen kon xam naa ne wax ji du bëgg duñ bëgg mu gudd lool dañuy la foofu jox honorable député mu àggale kàddu yi di wax ne ñi nga xam ne seen borom yàlla dogal na seen njaboot ñu ngi si kaso yi ñu ngi leen taxaw si lépp luñ mën moo xam muy seen lekk moo xam muy seen naan parti bi seetaanu leen benn yoon te xam naa fan yu néew incha allah danañ fa def délégation seeti leen ngir gën a masawoo ak ñoom coono yi nga xam ne ñu ngi koy def. Cheikh Thioro Mbacké honorable député coordonnateur Pastef Touba vice président groupe parlementaire Yewwi Askan maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Serigne Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatu am tarixatil muridiyya di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te wér bala maa nag damay masaw askanu Touba ndax 4 mois yi ñu ñu génn wala 5 mois yi ku ci nekk gis na ne dañoo manqué ndox lool lool lool ndox nekk loo xamante ni képp ku ko manqué di nga yëg ni manqué nga ko kon nag jàpp naa ne juróom weer yi ñu génn wala juróom benn weer yi Touba ñu ngi dund moment yu difficile te dégguma kenn wax ci ministre hydraulique maa ngi dégg ñu ne tey dina fi ñëw wala suba dina fi ñëw waaye mu ñëw fi rek def fi ay discours dem doyuñu dañoo bëgg Touba mu ay solution ci manqué ndox mi ndax bu màggalee day manqué ndox gàmm day manqué ndox ajjuma sax bu jotee day manqué ndox jàpp naa ne jot nañu saafara ko ndax dëkk bu mel ne nindi 1998 lañ amoon forage fii ma waxee nit ñi 50 000 personnes ña ngi fay yeewoo ci benn forage loolu yenul maanaam kon jàpp naa ne jot na nguur gi considéré leen pas mu dëkk dëkk boo xamante ni bu élection jotee da koy perte du leen fulla du leen fay daal fu añam a amee ñeenti forage wax dëgg yàlla Touba war a am juróom-ñeent fukki forage kon ñu ngi wax État Sénégal ñu jël Touba ay responsabilité feneen fi ma bëgg a duggaat li ma waroon wax lépp Ahmadou Lo coordonnateur département wax na ko ak soxna Fatou Mbodj man sax li may faral di wax ñun Pastef dañoo war a wàññi discours te ne ci terrain bi te xam ne kiñ jàmmaarool gat sa gat sa la xam ni ko ni ko ni ko Amadou waxee léegi rek makki sàll gis nañ ne Ousmane Sonko boo ko tuddee ñi ko xam dëgg-dëgg sax nee nañ boo tuddee turu Ousmane Sonko ci wet aw saagoo nday lay dagg ci wet ga kon kooku du adversaire politique am ab ennemi la ko jàppe kon jàpp naa ne ñun ñuy taxaw naan Macky Sall day doxal démocratie nanga loolu ku xamul Macky Sall moo koy wax yéeneen bi gën a mooy ñu ne ko Ousmane Sonko nit ñaa ngi koy seede ma ca kaso ba waaye loolu dama koy wax ne yéen a jooju du ko am ba àdduna tukki Ousmane Sonko nekk ca kaso bi mooy Macky Sall génn na ca palais bi loolu nag maa ko wax devant la caméra te damaa jël sama comme ni ko coordonnateur waxee dañ ko yëgal tàgguwuñ ko te noonu laa ko waxee bi ma ko jotee keroog biñu demee bureau commissaire Camara bi nee naa ko yéen loo def yéen ko tay da ngeen tay tay ndax mënuñoo dugal keroog demande autorisation depuis le 3 mu bàyyi ba le 9 mu door ñu dugal kañ dañoo dugal demande autorisation même jour même jour vendredi commissariat wooluñu kon li ñu defoon bi jàll wane na ñoom ñoo ko tey ñun nag lañ ko waxoon dañ leen a yëgal mu neex leen dinañ mars mu naqare leen dinañ mars mars bi nag la 15 la mars bi nag la lañ ko woote fii ci Mbàkke ñu ngi démarré ci station Total bi jëm biir Mbàkke wër ko mars bi nag ñett waral na ko bis di njëkk mooy ñi nga xam dañ leen jàpp ci manifestation le 10 février bi jàll buñ ci tuddee sëñ Assane Mbàkke mën naa yóbbaale kilifa diine yépp ak yeneen jàngalekat ak ay xale étudiants ñu jàppaleen jàppin woo xamante ni dara wu ci yoon lu dul dañoo demande dañoo dañoo dañoo dañoo bëggoon a def loo xamante ni yoonu Sénégal moo ko muy demande manifestation kon jàpp naa ne loolu bu ñu ciy jàpp nit ko war a jàpp ci ci lieu fa la ñuy defee manifestation mais ku dugg otom dem kooku jàppuñ ko dañ koo kidnappé te nag li may faral di wax ñun buñu taxaw naan nañ leen bàyyi nañ leen du saafaro Macky Sall rapport de force lañ ko la xam kon nag la 15 bëgg naa képp ku yeewoo Mbàkke moo xam ndox mi manqué li ñuy woote ci manifestation dafa bëri ba ci dund gu seer gi dañu cee woote pour manifestation ndax Macky Sall ni réew mi jaarul yoon loolu xam ko mooy Sëñ kon nag xeex Macky Sall dama jàpp ne du ndam ci kenn foo toog ñëpp bañ ko mooy ndam ci képp kuy ndax amutul majorité ci sénégalais te 2024 yoon muy ko kon jàpp naa ne manifestation bi ñu woote la 15 képp ku yeewoo ci département Mbacké ñu ngi la ci woo pour nga ñëw ne Macky Sall mu yor réew mi baaxul yoon kon ñu ngi woo askanu waa département Mbacké yëpp beneen bi ci toppaat muy le suba la 14 Yewwi Askan dañoo woote manifestation foofu ci ACAPES Dakar terrain Parcelles Assainies manifestation boobu it ni ñu waxee ci bii laa ko waxee rek dañ koo yëgal rek mu neex ko def mu naqare ko ko def te département Mbacké musa des ginnaaw 133 personnes yi ñu jàpp ci combat politique boo xoolee Mbacké moo jël première ñun rek ñoo ci am 53 personnes kon combat libération combat libéré Sénégal ni ci suñ tubaab mën a ñëpp noonu la ci département a ñëpp ñun kenn duñu bu ma ko waxee sama xel day dem ci Abdou Sylla nga xam ne ñu ngi ko jàpp depuis 8 mois depuis 8 mois mi ci kaso bi te buñ la jàppee 6 mois yoon digluwu la dañ la war a bàyyi nga dem te Abdou Sylla ñëpp xam ne ne cuuj boobu nekk ministre de l'intérieur moo ko jàppale ngir diglu ko xaalis bañ koo jàppale kon manifestation bi ñuy wootale 15 dañ ci demande libération Abdou Sylla ku ci nekk seen xel day demaat ci Diop Taïf moom it ci département bi la dëkk fépp fu ñu mas a gis Ousmane Sonko dañ ko gis ci wetam kon la 15 dañuy demandé libération Diop Taïf ku ci nekk suñu xel sa dem dina dem ci ndongo Diop kon yaakaar naa département Mbacké département la boo xam ne ay bañkat lañ Ousmane Sonko mii ñu ànd di ko jàppale ci politique gis na day bañ moo tax waa département Mbacké ànd ak moom bu ñu gisoon ne day complot réew mi duñu ànd ak moom département Mbacké ku bañul mëndu ànd ak moom bu yorop xaalis taxul ñu ànd ak yow la preuve mooy élection législative yi ñu génn milliards yoo xalaat Macky Sall dugal na ko ci département bi ki yor carte kat bi gën a mag mooy LONASE Lat Diop indi na fi indi fi ay xaleem ku ci mel ni Antoine Diop ñëw na fi indi fi ay xaleem ak ñu jënd du ñu xooxatal te loolu nag 15 war nañ koo wan Macky Sall ko département wak pare nañ ci yow pare ci loo mën a am mënoo fee jënd kenn mënoo fee xooxatal ndax booy xooxatal da ngay xooxatal ay ragal yow mi nga xamante ne ragal bi ñu la waree tëj nga fi ragal ñëpp kon nag 15 ñi ngi wax ñu demande libération Abdou Sylla te la 15 premier acte rek bu ñu teg la mais dinañ ko lawal ba feeg ñuy bàyyi suñu détenu politique yi ndax nag layaam layaam bi dafa jeex tàkk Macky Sall li mu bëgg mooy ren dañu te loolu duñ ko nangu li ñu koy faral di wax mooy Ousmane Sonko heure bu ko li ko Ousmane ko waxoon ca mois de février ba la jàll xeex bi mën naa ci ñànk ay donc waaye yow sa nguur dina jeex loolu laa gëm loolu laa gëm damay dalal xelu patriote yëpp ne yéen xeex rek ngeen war a def mais Ousmane Sonko moom li ko garanti mu jot ci réew mi loolu yàlla dogal na ko pare xeex leen incha allahu rabbi Macky Sall mënul dara Ousmane Sonko li may waxaat di ko tëjee samay kàddu nag mooy le 16 ñetti fan yu ñu jëm muy le 14 le 15 le 16 mooy ñetti fan yoo xam ne ci la ñu war a libérer Sénégal man loolu laa gëm président Ousmane Sonko ñoo gën a gore président Ousmane Sonko ñàkk na liggéeyam ngir Sénégal président Ousmane Sonko am na ay doom yoo xamante ay 19 ans la ñu ay 20 ans heure bu ñu génnee ñu naan leen seen bàyyi moo violé diw kon kooku bu ñàkkee lépp pour Sénégal bu saako ceeb doon jar 50 000 francs mën na di ko jënd te du ko yëg ndax xam-xamam may na ko ko liggéeyam may na ko kon bu sacrifié boppam ñun Sénégal yi mu dénk suñu bopp waruñoo gën a gore te jàpp naa ne du ñu gën a gore ñun waa Mbàkke moom du ñu gën a gore xaw ma waa fan heure boo déggee ñu ne Macky Sall ren na Ousmane Sonko mooy ren na 100 000 sën yi nekk ci département Mbàkke ah loolu ñëpp la la 15 la 16 Ousmane Sonko heure buy jógee këram la 16 heure bu gestoo dina gis département Mbacké yëpp maa ngi wax danaa département buñ mobilisé wu nañ resté fii la 16 toog bu Macky Sall bëggee def dara Sonko lu noona manifestation yi bu kenn wax kenn dara ku xam nga la nga war a def nga ko ndax Macky Sall moomu réew mi yaayam moom réew mi réew mi ay carte jox bu ñu nekkoon ci réewum monarchie wa ilaa réewum buur du ma sa nekk buur ci réew mi xam nañ famille yi mën nekk buur kon démocratie bi tax mu mën a yor réew mi démocratie boobu na ko bàyyi ko war a wutu wutu ko du mooy ñuy tànnal président de la république 2024 président de la république 2024 Ousmane Sonko lay tudd mu neex ko ak mu naqari ko ñun te xam ne amuñ jot déclaration yi sax li waxoon mooy ko wàññi te dem ci terrain bi ndax Macky Sall gàtt sa gàtt sa la xam Ousmane Sonko ñun Sénégal yi mu dénk boppam ñun Sénégal yooyu dañ ko protesté te kenn du ci man dara dégg nañ nag fan yi dugg nañ ci ay écrit doomi président de la république lañ dégg ñu ne moo ko jiite ak yenn ci ay directeurs généraux di jënd ay mbëri làmb ngir ñu def ay dégâts matériels ci dëkk bi bu ñu wootee le 16 la 14 bu ñu paree ñu giñ ko opposant bi mais nañ xam ne opposant bi leen constitution Sénégal may loolu la ñu muy marche pacifique muy manifestation pacifique kon nag lépp lu ci dugg loo xamante du noonu na xam ne état na jël ay responsabilité am te xam ne ñun Sénégal fi lañ dëkk amuñ ñaari nationalité benn nationalité lañ am a 6 mois naa ne réew mi bu tàkkee ñun ñoo ci gën mais képp koo poussé nag bu révolté woo da nga xam ne yaa ko ci poussé mais ñun jàmm moo ñu gën a lu ñu mën a am te nag réew mii suñ ndey fi lañ dëkk suñ bàyyi dëkk te ñoo ñu yàlla génn réew mi kon Macky lépp lu muy woote li ma a wàcc ci yàlla mooy du ci mucc te ñu ko ciy dugal muy ñoom Farba Ngom ay ñoom Mame Mbaye mii nga xam ne ay sàcc lañ man maa ko wax lépp lu Ousmane Sonko wax ci rapport bi dëgg la bu fekkee ne dañu jàpp Ousmane Sonko nañu porte wu plainte Birahim Seck lu dul bëgg a xañ benn nit boo xamante ni li ëpp loolu damaa jàpp ne dañuy gént ko yor mais ma ko tontu li bu bu jàkkaaroo xale yi mu jàngal la la tiim nga ne Macky Sall 2024 du nekk candidat mayu ko tey nga waat télé naan politicien mën naa wax dara génnaat ci kooku tontu Ismaïla Madior Fall man du ko def mais dama koy faral wax ne dossier bii ñun patriote yi bu ñu ko jàppee dossier poli bu ñu ko jàppee dossier yoon dossier politique la. dossier politique nag politique moo koy lijjanti. ñun xam ne ni ñu koy seeree te dinañ ko seere incha allah rabbi Ousmane Sonko muy li ma leen waxoon ci dossier Adji bi lay wax du dossier Adji Sarr moo ko teree bokk. mais du dossier Mame ñàkk jom mi moo ko teree bokk. incha allah rabbi le 16 dina wuy dina ñëw dugaat këram ñu tàmbulaat suñu nemmeeku tur 2024